amuñu frontière xeet ya nekk Casamance am na yu nekk Gambie yi ñu nga euh, Guinée Bissau wàdd bu yàggulee la dem seeti euh, euh, jaame fukki at ak ñaar mais xogoo lu bees te bi mu koy def hmm. fekk na man ma fësal sama programme le 8 décembre dafa la plagié mani waade dafa la plagié mani mani waaw vous êtes en train de dire que dafa la plagié mani suñu programme tontooma ma ni waaw suñu programme du moom dong moo ci tibb waaye tibb na ci ba doy bon loolu ci wàllu Casamance ñaar mooy ñaareel bi man bi ma nekkee affaire euh, aux Nations Unies waxtaan naa ceeg moom ñu ko defe naa ni daal bu ñu defoon nii def nii def naa dinañ ko war a mën a kii ñun Nations Unies dinañ la ci dimbali mu ni déedéet ah kii mbiru Sénégal la ke booluwuma ci kenn man maa ko war a defar ba fii ñu toll defaru ko man nag bu ma nekkee président bu ci yàlla àndee damay woo Nations Unies pour ñu dimbali ñu ñetteel bi xam nga dama la ni ñett ñeent la ñetteel bi moo di Casamance su ñu amee jàmm dama koy def mu nekk grenier du Sénégal ndax foofa bu ñu fa lu ñu fa bay mu jóg mu sax mu sax donc dañ dañu fay bay lépp ngir njariñu Sénégal te fii mu nekk daanaka mënuñu fa def même tourisme ba fa amoon sax amatu fa ndax insécurité. d'accord mais mais boo ko defee waaw rapidement. ñeenteel bi ñeenteel mm-hmm. bi moo di Casamance dafa dagg ci restu Sénégal. voilà c'est là où je voulais en venir. parce que bu fekkee da danga taxawal yooyu te amul fu ñu ko jaarale tamit amul njëriñ. voilà très bien kooku moom ànd nañ ci loolu moo tax ñeenteel bi moo di désenclavé maanaam fexe ba Casamance gën a bokk ci biir Sénégal loolu lu ñu koy defee route de contournement bi ñu def mu nekk jaar euh, Tambacounda moom laay defaraat ba mu ni dong képp ku bëgg dem Casamance mën a jaar foofu ñaareel bi. coupeur de nag ñaar taxawal ñaareel bi moo di hmm. géej gi lii ñu fi def après le Joola doyul war nañu am ñaar ba ñetti bateau ba bés bu nekk yu mu wóor ñu ne bateau dina jóge Dakar dem Ziguinchor nga nga baal ma tuuti nga baal ma rek balaa waaw nga ba tey hmm. ci wàllu woowu hmm. bu boobaa nag ma dem ci suñu mbokk Gàmbi suñu mbokk Gàmbi ni ko mbokka dañu bëgg fii ñu def fi benn pomme de bu boobaa nag ñu mën a waxtaan waaye su fekkente ni waxtaan defuloo dara bu won leen ni man nga leen a contourner ah, bu boobaa ñoom ñu ni a ah, bëgguñu bokkat alors le show électoral révèle une nouvelle facette de Ibrahima Fall eh bien Ibrahima Fall fait rire il fait rire Fall alors Ibrahima Fall euh, Batolo Joola Batolo Joola li fa di woon fitna boobu ñu bëri xam na ni tali bi la bokkoon merci beaucoup ku nekk xam na ni batalo Joola waaw li woon tamit bokk na si euh, ragal bu nit ñi ragaloon yoon bi donc sommet de contournement boobu bu ba pare nan la nit ñi di amee xel mu dal pour mën a jël yoon wi parce que nit ñi da leen di jaral euh, ñu jël bato bi buuxante ba li ci am am ci am te ñëpp mën nañu bokk jël avion. loolu maslaa boobu nga doon wax nag moo koy indi xam nga maslaa mooy bato bi war naa jël téeméeri nit nga def ci ñaari téeméeri nit naan maslaa bu ëllëgee nag ñu dee nga maslaa loolu lañ fiy jëlee. bu fekkente ni yàlla may nañu ndam bu fekkente ni bata buy ñeenti téeméer lay def du def ñeenti téeméer ak benn parce que loolu boo nekkee kilifa faaw nga dëggu di def loo xam ne lii dafay mel ni yow yaa ca nekk parce que bu fekkente ni da nga nekk ci bato bi doo bëgg ñu def ci lu ëpp loo xam ni da ngay suux te bato boobu itam fas nañu yéene ñu génne ko ci géej fas nañu yéene ñi nga xam ni ñi ñoo am responsabilité ci mbiru bato bi ñu teg leen yoon fas nañu yéene itam ñi nga xam ni fas nañu yéene itam ñi nga xam ni ñoo ci am ay mbokk yu suux a ah, ñu fay leen réhabilité leen def benn mémorial gis naa loolu lépp am na fii amu fi de amu fi de am na fii mani indemnité am na am na ñu fay dix dix millions mani waaw mémorial bi bi ñu bi ñu waxee loolu ci suñu programme waaw le président jël ay jël ay tool dem fee ci dem fee ci ci ci ci ci ci bi hmm. booba rombee nga gis tool yu bari nee na foofu la bëgg a def kii bi daf loolu itam daf ko jéggaani ci suñu programme bon alors la tire dernière question avant le dernier chapitre waaw waaw monsieur Fall monsieur Fall bi ma monsieur Fall bi ma xamoon. monsieur Fall bi ma xamoon fan yële jamono jëlee ak monsieur Fall bi changé na. c'est le show électoral waaw c'est le show. mais monsieur Fall monsieur Sénégal tam am na beneen problème bu ñu jànkonteel mooy ndaw yi ndaw yi amuñu liggéey ndaw yi dañuy jéggaani di jël ay bato fu ne ñu dem fa fu ne ñu taxawaalu léegi yow problème chômage bi. immigration bi du waaw waxuma nag nga def comme yeneen candidat yi ne donc dinaa leen liggéey naa leen ana ñu amul liggéey wala. non lu leer laa wax. waaw man ñun ñun ñun ñu ñun ñun ñu concret lañu bëgg wax waaw xam nga ndaw yi seen mbir du lu yomb képp ku ñëw ni leen dafa yomb daf leen di nax lu jafe la waaye man nañ ci def ay jéego yoo xam ni yu wóor lay doon benn bi moo di xaalis bi nga xam ni dañu koy pasar pasare di créer ay sénat di créer vice-présidence di créer ay agence di yu dul jeex di créer gouvernement boo xam ni daanaka ñeent fukki nit la di créer ay ministre conseil de présidence ñoo xam ni ku ci nekk dañu lay fay xaalis bu bari ak di corrompre waa conseil constitutionnel nga xam ni 6 millions nga leen di jox par weer xaalis booba la ñuy teg ci yoon jubal ko jubbanti ko jële ko def ko ci ngir ñu fay ci ñu mën a euh, jox ndaw yi ñu mën a xëy mën a gont ci xaalis boobu itam la ñuy tibbee ngir mana a dimmi euh, diminuer prix denrée alimentaire yi maanaam njëgu dund gi bu jee bu loolu weesoo hmm. am na feneen foo xam ne fii dañu fay jëlee xaalis am nañu phosphate am nañ pétrole ca Casamance am nañu or am nañu fer hmm. loolee dañu koy exploité teg ko ci yoon ba dërëm bu fa génn ñépp xam ni dërëm génn na mi ngi fii te lii lañ koy jariñoo waaye du nekk loolu Ibrahima Fall donc euh, li ñu si waxtu bariwul bariwul mais très ñetteel bi hmm. moo di yàlla def na man dama newoon bitim réew sama xameel foofa kenn laam-laamewu ko kon defe naa ni dinaa war a mën a sukkandiku ñi nga xam ne ñi xam naa leen ci bitim réew ngir ñu mën a dimbali Sénégal ci développement économique am. très bien xale yi ndaw yi. li am ba des moo di ñoom ñooy avenir u Sénégal. très bien je suis obligé de vous couper moo tax ma leen ma nañu taxaw waxtu yi nañu taxaw hmm. nañu taxaw temm. très bien ngir jële fi Ablaye Wade. très bu dul loolu. quel problème du rek merci merci je suis obligé euh, parce que dafa ñu dese benn point boo xamante ne il faut ñu wax ko c'est le point euh, qui concerne l'immigra l'immigration alors très rapidement en une minute mais vraiment en une minute nga tënkal ñu nooy faje problème mu immigration ak euh, ñii di dee si bato yi ak ñi nekk foofu te nekk ñu si sécurité immigration très rapidement oui ci suñu programme ñetti mbir lañ ci teg ben moo di faaw ñu jox kaaraange suñu doomi Sénégal yi nekk bitim réew ak fu ñu mën a nekk loolu obligation la républicaine ci état ñaareel bi moo di ñi nga xam ne ñii dañu bëgg a génn te war a génn war nañ leen dimbali ci ñu mën a génn ci yoon ci yoon ci yoon loolu tax na hmm. nee nañu su fekkente ni dafa am réew yoo xam ni yii dañuy def difficulté pour sénégalais yi dem fa ñun tam bu boobaa dañ leen naan kenn du fi teg sa tànk soo amul visa. très bien. ñetteel bi ñetteel bi moo di émigration dafay indi koom-koom ci réew mi suñu do doomi Sénégal yi nekk bitim réew 700 milliards de francs CFA la ñuy dugal ci économie bi. très bien alors alors la solution. parce que là là la on est vraiment pris par le temps. oui je vous explique la solution. on y va très un défendre. moo di joxe kaaraange suñu doom yi nekk bitim réew ba duñ leen toroxal. oui ñaareel bi favoriser ñi bëgg a génn teg ko ci yoon. oui ñetteel bi suñu mbokk yi nekk bitim réew ñu jox leen seen gëdd par exemple ñu am ay député à l'Assemblée nationale. oui am ay ministre dans le gouvernement. Mm. ñu leen di dimbali ci euh, école ak dispensaire yi ñuy tabax. bu ñu ko tabaxee ba noppi état bi du dafa yóbbu sax ay instituteurs ak i euh, euh, sage-femme d'État loolu mm. ci gàttal moom la ñu wax ci mbiru émigration nee nañu itam mm. dinañu favoriser ña fa nekk ñu ñibb si ndax Sénégal daf leen soxla da dañu am ay ay diplôme wala man-man yoo xam ni Sénégal Fall candidat à la présidentielle euh, candidat de la coalition Taxawu Thème alors Ibrahima Fall à chaque fois candidat bu ñëw si show électoral danañ ko tegal ay kàddu yu tukkee feneen mu joxe ci euh, xalaatam am na ku njëkk a wax ana lañ la wax. campagne électorale li ko tax a jóg du sànnante ay xeer du bojjante ay paaka du tiirante fetal campagne électorale li ko tax a jóg mooy maanaam jongante ay xalaat ay idée ay programme campagne li ko tax a jóg moo di teg mbir yi ci yoon waaye doo xox xoqatal nit ñi ñu am droit manifester nga leen di sànni ay bombe lacrymogène nañ ko ko wax te moom itam mi ngi naan da sànni xeer na fàttaliku bi mu nekkee ci opposition nekk ak Abdoulaye Wade la mu daan def le show am na keneen ku wax ana lu mu wax man li ma wax c'est très clair wax naa ko waxaat ko parce que li ma wax man du ma wax waxeet damay wax waxaat CNT conseil national de transition loolu moo koy xaar au bout au bout du coup d'état électoral s'il persiste et signe imposé sénégalais yi boppam ne gagné na élection yi kenn gëmul ne Abdoulaye Wade mën na fi gagné élection te. ngeen jege palais bi moo tax mu tere la. waaye li ñu wax li ñu jege palais bi mais palais bi askan ko moom moom locataire la rek boo fayatul loyer loyer bu am na yoon moyen la may bu jotee dañ lay génne. donc moom fi mu nekk fayatul luwaas dañu demande partir. un conseil un conseil national de transition au Sénégal. ñaari mbir luyaas de donte am nga ay milliards yi ko fay itam boo fa warul a nekk war ngaa génn ñaareel bi conseil national de transition loolu ci suñu kanam la rawli gët Ablaye Wade. bu mu ñu yóbbu ci loolu loolu tooxi doona la moo amoon libi moo ameen faneen loolu war naa fexe ba duñ ca dem te yomb naa faj hmm. ndax bu fekkente ni génne na candidature duñu àgg ci loola leçon électorale am na keneen ko wax ana lu mu wax ministre d'État est-ce que par exemple coowu troisième mandat sagal na démocratie sénégalaise coowu troisième mandat ak ni nga xam ni c'est presque révolu kenn waxatu ko fenn est que loolu yaakaar nga sànq la ci ci Sénégal mais loolu du am problème gis nga Jacques Chirac bi nga xamee ni mu doon dem amoon na ñaari mandat mais benn mandat bi moo juddoo ci constitution bi nga xam ni moo taxoon ñu ni am nañ benn mandat ba nit ñi jàppoon ni waroon na man defaat ñaareeli mandat moom moo mujj seet situation politique bi mu jël présenté wu. man de dama xaw a am gàcce ndax kii wax lii de droit la jàng te jàngal naa ko itam te bokkul ak li ma ko jàngal ndax bu fàttalikoo bu fàttalikoo mani mani bu fàttalikoo li ñu ko jàngal ci droit constitutionnel bu France xam na ni war naa xam ni France amul limitation de mandat alternance amul limitation de mandat tant que ñu ngi la wóolu mën ngaa nekk candidat Sénégal nag daf am limitation de mandat ñaari mandat la jullik suba la boo jullee ñaari rakk da ngay Mesdames, Messieurs, le show électoral, je suis avec euh, candidat à la présidentielle de 2012, mon collègue Latir Manet de l'Observateur. ñu ngi leen di gërëm di leen sant si euh, teewlu bi di leen jox dig daje ci beneen show électoral incha allah bonsoir. C'est le nom du nouveau quotidien d'information générale publié par le groupe Futur Média.